ak njub moom rek la sunu boroom subhanahu wa taala soxla ci doomu aadama sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu day wax ne wala day giñ sax ne doomu aadama bi waxtu woo xamee ne teg nañ ko ci buntu bàmmeelam amul dara loo xam ne mën na ko faa jariñ lu dul ne dafa saxoon ci ak njub kon njub mooy li am solo daana wax itam ne alquran li muy bari bari bari lenn rek lañ ci gën a yittewoo muy ak njub li tax ñu di ko jàng ak li tax ñu di ko topp lépp mooy am ak njub gi nga xam ne moom la ñu suñu borom subhanahu wa taala digal moo sunu borom subhanahu wa taala wax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko fastaqim kama umirta na nga sax ci ak njub ni nga xamee ne noonu lañ la ko digalee nanga sax ci ak njub ni nga xamee ne noonu lañ la ko digalee ba tey sax ci ak njub itam bari lool ak njariñ waaye li ca sunu borom subhanahu wa taala digle itam am solo lool waaye neex lool itam ci ab jullit ndax boo demee ci suratul fussilat sunu borom mi ngi wax ne inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika an laa taxaafuu wala taxzanuu wa absiru bil janna allati kuntum tuadun ci gàttal mu ne ñi nga xam ne dañoo wax ne gëm nañu yàlla sunu boroom subhanahu wa taala ba noppi sax ci ak njub sax ak njub mooy sax ca la leen war nee na ñooñu ne waxtu woo xamee ne toll nañ ci faatu nee na sunu boroom subhanahu wa taala dafay yebal ay malaaka yoo xam ne dañu leen di bégal naan leen bu leen ragal bu leen jàq itam waaye dañ leen di bëggal itam ci àjjana ji nga xam ne moom la leen suñu boroom subhaanahu wa taala doon dikk ne leen itam ñun de ñooy ñi nga xam ne ñoo méngoo woon seeni mbir ci àdduna waaye ñooy méngoo seeni mbir itam ci àllaaxira te àllaaxira googee de bu ngeen fa demee la ngeen fay fekk mooy lépp loo xam ne rek seen bànneexu bakkan la lépp loo xam ne rek seen bànneexu bakkan la da koo fekk te loolu du dara lu dul rek ngan goo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy jéggalekat bi mooy yërëmekat bi moo leen ko defal nahnu awliyaukum fi lxayaati dunya wa fi l wa lakum fiha ma tastahi anfusakum wala anfusukum wa lakum fiha ma tadaun nuzulan min gafurin rahim mi nga kon sax ci ak njub li muy maye kon bokk na ci mooy àjjana ju sax dàkk te ci beneen aaya bi gën na ko leeral suuratu suuratul anqaaf wax ne inna alladina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ulaika asxaabul janna xaalidiina fiiha jazaan bima kaanu yacmaluun mu ne ñi nga xam ne dañoo wax ne gëm nañu yàlla sunu boroom subhaanahu wa ba noppi sax ci ak njub nee na ñooñu de duñu ragal dara tey duñu jàq ci dara waaye ñooñu itam de ñooy waa àjjana waaye teyit àjjana la ñuy sax muy doon muy doon ak fay goo xam ne sunu boroom subhaanahu wa taala moo leen ko defal mu doon ak fay goo xam ne sunu boroom subhaanahu wa moo leen ko defal ngir jëf yu rafet yi nga xam ne moom lañu doon jëf ci àdduna yàlla nañ ci suñ boroom subhaanahu wa taala boole jële nañ ci abi amrata sufyaan ibn abdullah radiallahu taala anhu mu ne bis yonente bi sallallahu taala wala bis mas naa wax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko moom sufyaan ne yow yonente bi dama bëgg nga wax ma ci lislaam loo xam ne duma ko laaj keneen ku mu doon wax joo xam ne bu ma ko toppee dinaa dem àjjana yonente bi sallallahu taala alayhi wa ne ko dangay wax ne gëm naa yàlla waaye nga sax ci ak njub kon nit ki bu gëmee yàlla sunu borom subhanahu wa taala sax ci ak njub sunu borom subhanahu wa mën na koo taw fexelee àjjana gëm yàlla nag mooy dangay gëm yàlla gëm malaaka yi gëm yonente yi gëm téere yi yàlla wàccee ci yonente yi waaye gëm itam dogal bi waaye boole ci itam gëm bis penc muy àllaaxira ne dina ñëw luy ñëw lay doon kon juróom benn yooyu moom la nit ki di boole ak gëmam mën a mat waaye juróom benn yooyu bépp boo xam ne man benn boo xam ne manqué na ci rek ak gëm yàllaam des na yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko boo boolee yii daal sunu borom subhanahu wa taala mën na laa boole ci waa àjjana xaddis boobu muslim moo ko nettali ba tey jële ci abi hurayra radiallahu taala anhu mu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa nee na na ngeen diggu doomu waaye ngeen sax itam ci ak jub waaye te ngeen xam tam ne de kenn ci yéen la ay jëfam musalul bi mu waxee loolu ñu ne ko wala anta ya rasulallah ba ci yow sax yow yonente bi yonente bi sallallahu alayhi wa daal di wax ne wala ana ba ci man sax man yonente bi sallallahu alayhi lu dul ne sunu borom subhanahu wa taala daf ma muur dafa ma sàng ci yërmandeem ak ngëneelam lu dul ne yàlla daf ma sàmm ci lu dul ci yërmandeem ak ci ngëneelam kon ba tey xadis boobu gis nañ ci jub bañ a ëppal ci diine ndax ëppal ci diine tegtalewul ak jub diine lim gën a bëgg mooy nit koo xam ne dafa diggu doomu du ëppal waaye du wàññi bari na ku xër ci diine jàpp ne la muy def lu baax la fekk ne ëppal ga mu ëppal ca diine yàq na ko bari na koo xam ne itam ko gàttañlu la fekk gàttañ lu mu gàttañ lu moo yàq diineem kon diine lim gën a bëgg mooy nit koo xam ne dafay diggu doomu du ëppal waaye tamit du wàññi itam kon loolu la diine gën a bëgg kon ci gàttal euh, sax ci ak njub ci gàttal mooy saxoo rek jaamu yàlla sunu borom subhanahu wa taala waaye saxoo itam toppi ndigali yàlla yi sunu borom subhanahu wa lépp loo xam ne digle na ko nga di ce góor-góor du sa kemtalaay kàttan lépp loo xam ne itam tere na ko nga di ko wattandiku di ko bàyyi sa kemtalaay kàttan kon su ko defee xam na bunt boobu taxu ko gudd muy baabul istiqaama foofu la yam su ko defee bind bi di ñëwaat ñu dugg a génn ci xalaat ci màggug yàlla gi sunu borom subhanahu wa taala waaye xalaat itam ci mbindeefi yàlla yi sunu borom subhanahu wa su ko defee moom it bunt boobu indiwu ci xaddis waaye xam naa moom it dañ koy mottilee bunt bi nga xam ne suñ Tuubaa indi na ko ci masaalikul jinaan di wax lu jëm ci wàllu xalaat su ko defee kon xam naa ñu ngi leen di jox dig daje beneen lundi incha allah beneen altine incha allah di ñaan suñu borom subhanahu wa taala fekkeloo ñu ko di ñaan suñ borom subhanahu wa taala nangul ñu liggéey bi waaye di sant bu baax itam mboolem mbokk yi nga xam ne ñi ngi teewlu jataay bi waaye di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax muy xaddiisu bis bi nga xam ne bu ñëwul sax dañ ñu koy laaj ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen nuyu di ñaan suñu borom subhanahu wa taala boole ñu mbooleem njariñ bi nga xam ne su borom subhanahu wa taala def na ko ci xaddiisu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa